sa arrestation ñu dellu si ci defar si jeunesse. Mhm. c'était dû à quoi. je préfère ma jël bal teg ko sama bopp dóor moo ma gënal ma nekk esclave sama biir dëkk. peut-être je l'ai dit de manière un peu insolente parce que jour boobu j'étais en colère. convoqué wuñ la. convoqué wuñ ma dañu ñëw sama kër mais avant ñu ñëw sama kër laa ne xamoon naa ne ñoom ñu ngi ñëw sama kër suba. kën kën moo ubbi leen ils un peu braqué bu ñu doog ñëw quoi teg loxo bi ci fetal bi def nii mais ni ma leen dalale. ñaan laajat leen ñu may ma ma julliwaat ñaari raaka ñu ngi mujj calme ñoom aussi. xale yu ndaw leen jàpp man fu ma nekkoon ay booy yu ndaw ñoom fekk te booy yi ña fa ñoom Lamine Niass ñu si jeel bi toog ñoom ñoom ñoom ñoom Diop Taïf ñoom amu ci kenn ku def lu garaaw ay 9 mois 7 mois 6 mois. pendant ñu leen di jàpp ak di dox ñu leen jàpp sans mbëkk ay nit muy amee moor ñu leen di bàyyi ñu dem di dox seen soxla mais tamal nga tas parti bi gaañ Sénégal parti bi appauvrir sénégalais yi booy daw ba tax booy amatuñ lu ñu lekk amatuñ yaakaar seen dëkk daw di dee ci géej gi mais demal nga tas parti boobu ñun sénégalais yi boo ñu loolu laa bëgg mu leer quoi kër diine yi nag laay waxal man taalibe tijaan laa kër yëpp nag laa bëgg parce que ñu bëri sax dañuy murit lañ may ñuy bàyyi faal parce que esprit boobu laa yor taalibe Cheikh Ahmed Tidiane laa taalibe Serigne Abbas Sall laa soppe Serigne Babacar Sy lu sagal màggal gàmmu tout ça mais période boobu suñ seen taalibe yi ñu ngi leen def comme ay mbaam comme duñu ay nit ci prison yi entassé leen ñuy toog ba suba di taxaw ba suba ñu ne Sénégal dëkku benn bopp la dëkku teranga la ana teranga bi man ma wax leen li mu leen war a wax sa mot de la fin mm-hmm. ma ni leen su ngeen amee ku ngeen di jàpp damay ngeen jàpp yi Dëmbëru Sow Kalifone Ahmed Suzanne Camara Tall Ngolngol ak sa député la bi ne dañuy rey ay nit pour dem 2024 bu ngeen bëggee ñu ngeen jàpp dem leen ngeen jàpp ñooñu loolu mooy sama mot de la fin ci sama audition